Directeur amee auditeur de la BCFM nous ngi am mbégte tey di dalal euh, le ministre de l'énergie Tierno Thierno Alassane Sall une émission bi le débat politique Thierno Alassane Sall mooy ministre de l'énergie, moi euh, également ku yëngu lool si wàllu politique fii si biir Thiès également dans les instances euh, suprêmes du parti de de de de monsieur le ministre Balano Soli, dans les dañ lay nuyu d' dalal la. je suis lay nuyu Ousmane. di nuyu auditeur Best FM.

Thiès parce que sama maam fii la ne woon nekk fi xaadi tribunal régional mm. am yu mu yëngu ci politique ba ñu duppee ko benn euh, école mooy Thierno Siré Elimane Sall waaw bu nekk Grand Thiès euh, bu nekk Grand Thiès samay wajur ne woon fi tamit daan liggéey ci ambassade yi jàngale fii ci lycée Malick Sy d'abord waaye puis liggéey ci ambassade yi ñëwaat fii nekk fi imam euh, man tamit ma donc ma juddoo Thiès mm-hmm. def lycée Malick Sy nekk yëngu lépp lu xale daan def ci jamonoom ci mm. lycée Malick Sy def mm. naa ko ko lu mm. dul loo xam ne ngor walla yàlla daf ko tere def du ñu xool du fekkee après après ce ce cycle scolaire nga def une bonne formation li ma li gars yi li ñu gën a bëgg xam mooy yow lan moo la dugal ci politique ah li ma dugal politique ne disons que ba ñu créé APR. waaw dugg ci politique parce que bala boobu depuis 89 maa ngi woon ASECNA. muy agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. nga xam ne siège bi fii ci Dakar la ne waaye. Il faut juróom-ñett réew ñoo ko seq. Mhm. bu ne mu am fa directeur national disons. Mhm. représentant de la Je mhm. euh, ma demoon ba directeur national bu ASECNA maanaam représentant de la au Sénégal. Euh, ci diggante gi ay 2007. l'État au Sénégal. am yéene bëgg tas l'ASECNA liñ ci jublu woon nag du doon parce que ngëneelu Sénégal la. liquidation loolu wala dañ ko bëggoon prix lan lan la woon. finalement naa mu ngi doon marché. ba nga xam ne jox OACI. waaw muy kuréelu xeetu réew yëpp. mbooleem réew yi ci àddina yoo nga xam ne ñoom ñooy lëkkaloo lëkkaloo di ne liggéey ci aviation civile muy organisation de l' aviation civile internationale jox na ay yoon ASECNA ay prix. waaw ngir xarala ak xarañ bu ñu xarañ ci liggéey bi. Mhm. donc mu ngi doon dox. Mhm. amul woon benn problème financier wala technique mais ñoom dañu séntu woon ni que dañu gis ni que ASECNA li mu nekk Sénégal ci seen gis-gis ñoom. waaw jëriñu leen. pas mm. jëriñul Sénégal. Mm. parce que waxtaan bi yëpp yàgg nañu wan leen ñoom ci ay chiffres ci ay note yu leer nañ. Mm. que le fait que Sénégal nekk ci biir ASECNA. siège am nekk Dakar. siège ASECNA nekk Dakar. da mm-hmm. nga xam ne Dakar mu ngi Sénégal yëpp mu ngi mekk deux mille euh, deux mille kilomètres carrés à peu près. Mm-hmm. mais mu doon gérer moom rek. plus de 4 millions de kilomètres carrés dafa fekk yeneen réew ñoo dajaloo dénk ko espace boobu. oui mais loolu lu mu dikkee boo xoolee ci histoire la. Mhm. bu ñu ko doon defaat léegi réew mu ne dina xeex pour moom jawwam mu di koy yor. Mhm. waaye comme dañu dajale woon organiser ko de manière rationnelle ñu mhm. ne centre bu nekk Dakar bi moom mooy gérer espace aérien bu Mali bu Mauritanie bu bu tiim géej bi mu naan ko fiir océanique bu. bu Gambie et cetera donc ñu ci gagné lu bari ñun siège bi à Dakar ay sénégalais yu gagné di ci liggéey. Mhm. ay entreprises sénégalaises yu bari di ci Les ay Sonatel Sénélec des écoles privées. supérieures ou etc. Mhm. des cliniques ñom ñep di bénéficier. Mhm. le fait qu'il y a un fort personnel expatrié ici ci Dakar. ñu xey bëgg tass tas ndax euh, souf aéroport bi ak euh, résidence yi nga xam ne moom le directeur général représentant ASECNA yeneen directeur yi yor. Mhm. suuf su occupé woon mhm. suuf su bëri la woon. gannaaw tey la ne nañu euh, foire bi. waaw tey stade Demba Diop. Mhm. ñu def ko bukki bi bukki rek lépp bi mooy bukki ak euh, jigéen jooju. saa yu ne mu ne ko courte que se paie par courte que bëgg a jël si beneen béy ci gétt bi ba gétt bi jeex. donc ba suuf soos yëpp jeexee. ñu ne léegi ASECNA ak aéroport moo fi des. plus de huit cent hectare dañu fexe am luñ ci dagg saa yu ñu laajee loolu rek mm. waa asek naa ne leen loolu mënut ta nekk mm. ñu ne donc ñi ne lañ leen fi jëlee ñoo ñan la woon ñan ñu doon laajte ñi bañ euh, mm. nguuru Abdoulaye l'ancien régime l'ancien régime waaw waaw donc euh, je me rappelle par exemple ci parenthèse rek foofu laa gën a xamee ak euh, président Macky Sall boobu mu ngi woon premier ministre euh, en 2006 ba ñu jubee élection législative ak présidentielle yi mm-hmm. Euh, bande verte bi mooy suuf soo xam ne dafa jàkkaarloog foire bi ak VDN bi jóge foire ba daanaka dem ba fi miiru aéroport bi jeexee côté Wokam bande verte boobu ñu bëgg ko séddale euh, ñu demoon ba def ci ay arrêté interministériel benn bés président ñëw euh, premier ministre Macky Sall ñëw aéroport Ablaye Wade daan tukki ñu daje fa. parce que mm. saa yu président Wade doon tukki man en tant que représentant je suis présent. président bu mu doon doon bu mu doon tukki d'ailleurs alors mu ni mais yéen na nga leen mën a seetaanee ñu joxe suuf soosu nga xam ne ci aéroport bi la bokk daanaka ma ne ko ah man de j'étais pas d'accord mais dans les réunions on m'a mis en minorité mm-hmm. mu ne non mais il faut me faire une autre ma ne ko bon léegi da ngay lu gën a simple mooy ñu convoquer une réunion boo xam ne ñëpp dinañ teew mm-hmm. ñun ñëpp ñu wax nga déglu mm-hmm. bañ demee réunion bi suñu ministre de tutelle était là d'autres ministres étaient là économie domaine et cetera ak

ci benn hôtel la daanu wetu aéroport bi ñu naan ko les Gones donc dafa am ay zone yoo xam ne non seulement waruñu ko tabax parce que bu fa avion daanoo ñu nekk ci avion bi ak ñu nekk ci suuf ci kër yi nañ ci boobu mara day tali ñu bëri waaye même pour secours yi yegg si day yéex mhm. parce que taliwu Dakar yi ak taliwu zone boobu nu mu mel suñu camion yi mag yi nga xam ne moo gën a gudd sax camion sapeur pompier yi nekk ci ville yi nii mhm. Euh, du fa mën yegg facilement. Hmm. les secours seront très difficiles à, à organiser. Hmm. ambulance yi duñ fa yegg facilement duñ fa am zone boo donc ba ñu paree wax jooju ñëpp féete boor ma féete boor mu monsieur le représentant je suis je vous soutiens et vous je vous encourage quand on a sa vérité il faut le dire Manam, bu ñu amee boo amee sa dëgg koy wax. dama ko hmm. donc ci gàttal. gannaaw tolof tolof yooyu ñu décidé en 2007 tas ans. 13 novem 2007, nou gen ne desisyon bo. Ba mou kwe fese l mom far basan an menisbi, nou gen tok akay sendikalist. Sendikalist, amoun loun ko wakoun. Nou gen, amoun yon en direktor jenou yop, yon fane yon, yon mal wakoun lege, ag nyenen, ag nyenen. Mhm. Transport routier, paske moun moun yon wakoun bo, transport terrestre aeryen, mhm. aeryen. Nou, euh, nou gen, nou gen, Euh, ba ñuy génn nag syndicalistes yi am ñu ñu wax wax le ministre là Farba. oui il faut ñu laaj kàngam yi nekk fii. Mm. ci dans l' aviation ñi nga xam ne ñoom ñoo la conseiller certainement seen point de vue. parce que li nga def lii ñun mënuñu xam fan fan la jógee. Mm. mu mm, directeur de cabinet am déy ko ne ko bu leen jox ñu ñu wax. parce que décision xas na am amoo nga expliquer fan nga ko jëlee. état c' est l' état jël na décision en avance. gars yi ba ñuy génn ils nous ont traité de traite. ba moo wax ceeg kenn ay. ay wax yu xaw boobu nag sama. waaw parce que c'était l'histoire mm-hmm. nga bàyyi mu jàll mooy. gars yi génn nañu nee nañu ñii ñëpp ay traître la ñoom mm-hmm. ñoo questionner la décision mm-hmm. il fallait riposter waaw il fallait riposter question d'honneur quoi ma ne ko ma ne gars bi yow on se connaît très bien xam nga man kan mooy traître dans ce pays kan mooy traître ba mu génnee ma ne ko voilà ce que vous avez fait parce que depuis des mois ñu ngi ko doon jox ay notes di ko wan ni li ngay def nii mënta nekk alors, voilà le résultat. Quand l'État prend des décisions, il doit assumer de les avoir prises seul. Parce que c'est votre responsabilité de prendre des décisions. Madame, il y a une constitution réunie, dès que vous avez décision. Mais aussi, vous faites qu'un surtout. ñi ngeen d'accord pour assumer ces décisions la waaye du ngeen leen boole ñu yàq suñu tur ci biti parce que maag ñi nous nañu lu yàgg mhm. te bëgguma suma mhm. en plus c'est terminé Maintenant, non ko ci en plus décision bi ngeen jël décision buy gàllankoor comme au Sénégal la décision buy gàllankoor taxawaayu Sénégal ci biir Afrique. parce que dañu wóolu woon. le mot de trop quoi. waaw oh, dañu wóolu mm-hmm. ñu siège à mm-hmm. en 74. Mm-hmm. Paris la one, la ne africain yëpp xeex nee nañ ko delloo si. Afrique parce que affaire décolonisation la effectivement mu Afrique ñu ñu dëkk yu bëri di ko xëccoo. ay mm. Côte d'Ivoire ay Cameroun. Mm. ñu ne di ko xëccoo. Mm. Senghor ne leen comme Côte d'Ivoire moom moo yor presque bcao di ci ëpp Cameroun c' était en en Yaoundé lañ ko lañ créé woon Air Afrique et cetera na ñëw Dakar. xeex bu metti ñu ñëw fa indi fa ay kuréel ay jumtuwaay yu bëri. def fa ay station terrienne. xam ne Abdou Diouf moo ko inauguré en 96 une très grande station terrienne. def fa seen centre de contrôle yu bëri def fa installation technique communautaire yu bëri am ñu fa tabax ay seen i kër di fa jàngal seen doom dans des mm. universités dans des écoles nga xëy ne tas na nañu génn ñoo ñëpp dem mm-hmm. genre kenn dootul wóolu Sénégal ci fànn boobu donc moo taxoon ñu wax ko loolu après nag euh, bis même nuit bi mm-hmm. si c'était à vingt heures ah ba mu ñu koy annoncé donc pendant que ñuy wax loolu ñoo ñu génn vers la fin ma ne ko am na beneen erreur bu ñu def mm. mooy que décision bu mel nii bu ñu mm. koy annoncé dañ koy waajal parce que gars yi génn nii mm-hmm xam naa bu baax ils sont en train man ma don sen chef maa don sen directeur wa yag nañu di frotté wu mm-hmm. ma leen gars yi ñu ngi dem wajal grève mm-hmm. effectivement bañu génné ma yag sama kër rek dégg sirène bi maak aéroport bi ñoo xawon jano ma dégg sirène bi xamné la minute d'après mom woo néma ne ma farba li farba waa mm-hmm. woo ma si dans 30 minutes l'aéroport n'ouvre pas dinañ la tekk bon après il y a eu beaucoup de péripéties une fille fi doon netali dina mm. dina si je comprends bien. mais il fallait à ci après quelques mois. Mm-hmm. Mm, dem quatre représentant représentants au Comores du moins au Sénégal quatre mm. représentant ASECNA aux Comores. ci Comor. bu vous voulez, il y ci ay soutien ñu ñu nek ci gouvernement bi. bien que dañ ñewon ci gouvernement bi d'accord ñu tellement ci par exemple Ousmane Masseck Ndiaye. dama daan wo dima conseiller dima encourager ak yenen membre gouvernement. Mm-hmm mais aussi avec le Premier ministre euh, qui était ministre euh, devenu euh, président Assemblée nationale Macky Sall ce soit une relation gëna a ba nga xamné un moment donné momit ba mu ay tolof tolof bien mm. que j'étais au comore on communiquait mm. l'idée est de créer un parti politique mm-hmm. une part créer parti politique mm. et puis finalement en décembre 2008 nous créé parti bi mu une période où, xamné ne Sénégal à ma demande mm-hmm. mais en même temps je faisais pas grand chose parce que ñu ngi doon continuer di wax waa ASECNA ki bu ngeen ko dénkee benn mbir rek dinañu tas mbir mi mhm. ak yeneen conditions yi pression yu ñu doon def ci mhm. Sénégal il fallait que ngeen prudent waaw mm donc man euh, comme je j'avais beaucoup de temps mhm. je suis devenu pratiquement ma nekkaat pratiquement un permanent politique maanaam bu ma xëyee bu à demee ASECNA aussi ne ma fa def lu bëri parce que ñooñu bëggul woon ma fës trop ci ay réunion ci ay décisions euh, gars yi dalaat donc ñu mettre ma en retrait bien que maa ngi doon am sama salaire waaw ah, donc finalement man nit ma am temps. Hmm. dugg ci di dem bu ma hmm. rek un salaire. <laughs> <laughs> ce que font beaucoup de l'erreur beaucoup de parti de beaucoup de pouvoir hmm. c'est de mettre leur opposant au frigo. donc ñun pour man foo nekk yaa ngi liggéeyal sa réew. mais da ngay jékki-jékki gis ñoo xam ne dañ leen dénk suñu kat dénk leen suñu ñoom contre nous mais lu lu sax ñu contre intérêt réew mi bu boobaa nga ne hmm. mais ñoom li ñu def ba ba ba di seen kàddu di jib hmm. ñu mun a wax librement hmm. parce que man ba ma lii dalee yëpp aw ma fa woon fa ma wax mënu ma woon ñëw ci sa rajo bi wax droit de réserve bu ASECNA mënu moon ñëw ci Best FM tok expliquer farbal ni nangam sangam te mom mu ngi doon wax ci mm-hmm. dem ci radio yi di wax donc pour nga am liberté mm-hmm. dëkk bi dafa melni politiciens ñoo ëpp liberté ñeneen Yom ñoy nekk ci yi ak télé yi di wax donc yow li da ngay dem dugg wax sa xalaat joxe mm-hmm. ko et puis xeex pour sa xalaat gëna bok ci ñuy imposé wu am na ñuy wax également ne ne ne né politique ascenseur social la maanaam ça justifie peut-être euh, bon toutes les réussites quoi loolu loolu enfin loolu luy remarquer lu lu ci bari yow sa est-ce que da nga am proximité ak Macky Sall voir waral un tout petit peu ñu wax tu un tout petit peu disons lenfant du du du de la perte, lo neex def même quand tu xam nga lo neex wax tu es virulent ak lan la mm, bon l'émission va montrer si je suis virulent mais. demain euh, damay mettre au défi quiconque. oui mu une ben phrase man buma mm. où il y a un mot de trop. Mm-hmm. Euh, virulence dans les. À, à, l'endroit de Idriss Seck de Karim Wade. on vous a entendu faire certaines déclarations. virulence ci wax ci kàddu. amout. virulence ci ci jëf aussi amout. Hmm. maintenant hmm. bu fekkee ni dossiers yi nga wax par exemple euh, sur le cas Karim Wade man clore naa débat boobu. Hmm. dootuma ci wax mais ba mu ba mu jotee. nit ñi bëgg a gëmloo nit ñi. parenthèse la rek. waaw parenthèse oui d'accord bëgguma ci dellu soit ci dossier yooyu. justement pour que ñi nga xam ne dañu mën a caricaturer facilement. Mm. Mm. ñu ne da nga virulent fekk loolu amul. ba ñu yëkkatee acte d'accusation contre Karim Wade xaw acte d'accusation lañ koy wax xaw mm. en tout cas. dossier bañ ko yóbbu devant CREI mettre ko mise en demeure bi. bu dossier bi génnee ñu bëri dañ ne lii mënta nekk. avocat yi mi génn bëgg gëmloo Sénégalais yi. que li ñu wax mooy tekki ni mom moom aéroport de Guinée équatoriale Malabo. de Malabo SA alors que société la woon boo xam dañ ko duppe won aéroport de Guinée équatoriale SA muy société bo xamné wouté nak aéroport bi da doon liggéey ay liggéey ci biir aéroport bi ak yu mel noonu BMCE etc euh, même euh, Dubai Port World amoon nañu créer ben société bu xaw a tudd foofu fii ci Sénégal ma amoon ci ay firnde yu wóor ci jëf yu ñaaw yu ñu def ci aéroport Dakar maa ngi lay fàttali léegi que maa la ses wax waxu sax saxé soufsi quand ba élection présidentielle 2012 hum. dafa am un décret de janvier 2012 c'est-à-dire à quelques jours du premier tour pour xamné Ablaye Wade def ne day dissoudre à aéroport du Sénégal la société bi nga xamné mom mo yoré won di exploiter aéroport du Sénégal yoré fa ay bâtiments yoré fa ay kii nommé un liquidateur il était euh, désigné pour euh, liquider les biens immobiliers principalement c'est ce qu'il a ci article bi ci décret Euh, donc ce qui ci jublu woon mooy suuf soosu nga xam de toute façon nous ko ñu jël une partie de l'aéroport du Sénégal Et yor le décret a été initié par le ministre des des transports aériens qui se trouvait être son fils donc on n'attaquait pas son fils wax naa fi léegi-léegi mm. Farba mm. kenn du yuuxu trop parce que amul bay bo xam ne peut-être mom nek na président de la république am yenn taxaway ci réew mi ba nga xam ne attaquer rek lobby bu puissant jóg ah moom il est c'est un homme politique bo xam ne peut-être il a ses convictions que je respecte mm-hmm. mais amul bon deuxième chose bi ma wax bo xam ne ba tay kenn mënu ko teggi moy mm-hmm. dañu jël ben société bo xam ne dañ ko tuddé d'apport d'apport d'apport ñun dañu def appel d'offre mm. Sénégal à l'époque ñom ñu def appel d'offre avons dañuy confier gestion aéroport Dias à une société qui boo xam ne xam nañ monde entier mën na lu bëri ci gérer aéroport parce que nee JAS aéroport une dimension bu mu yegg ñu nekk Sénégal fii mënuñu ko gérer ñu dem sélectionner société allemande bu ñu tuddee duppee Fraport société boobu war a signer contrat avec AIBD pour moom mu gérer directement aéroport JAS au lieu que mu doxale non finalement ñu dugal ci ay njuuj njaaj yoo xam ne hmm. dafa dem créer une société en Suisse en en Luxembourg hmm. société offshore boobu société ñu Sénégal créé fi une société qu'on appelle Dapor c'est un peu technique c'est un peu difficile à expliquer mais in fine d'apport amul xara juridiquement hmm. mu ngi doog a bu participer appel d'offre bi njëkkoon bi nga xam ne moom moo tax ñu jox affaire de frapport bu ci participer woon du gagner pourtant moi, je gère l'aéroport. finalement première euh, premier vice très grave mais bu ci grave grave, nga d'apport bi nga am mm. aéroport mm. employé la mm. ñu confier ko contrat d'assistance ci aéroport Dakar chaque fin de mois ñu fay ko quatre millions ci durée milliards et quelques mm-hmm. Si je suis ministre des infrastructures et transport mhm. euh, euh, euh, fekk aéroport bi ci anam yoo xam ne pas non non. tali rap. Mhm. je me rappelle bien visite président Obama mhm. mais ben parti au piste bi c'était dans un état lamentable il a fallu me defloo maa ne Ageroute Ageroute pour nous au lieu de faire ci procédure pour nous aider l'aéroport à régler cette partie de la piste je me rappelle que le groupe électrogène aéroport bi fait mm-hmm. ci choses qui ont ci mm-hmm. coupure euh, groupe de tenir euh, touristes de di roue, clim du marché enregistrement bi etc. je me rappelle que l'aéroport a fait des alors faites. Alors, ne yaa 96 millions mm-hmm. pour appeler l'aéroport bi maintenance pour appeler ko ñu ñëw gis ni que aéroport bi dafa gën a ràpp que bañ que man ba ma fay quitter par exemple mais ñooñu lan lañ def ñu ne leen indi leen firnde li ngeen def ak ñan ñoo jëfandiko finalement xaalis bi parce que d'abord ñaari nit ñoo fa newoon hmm. mais xaalis bi dañ ko jël viré ko dans un compte en en Luxembourg hmm. de par à partir de Luxembourg viré ko Belgique hmm. et cetera xam nañu ñan ñoo jël xaalis bi in fine mais loolu bu ma ko xamee am ñoo xam ne toog nañu fële ne waaye si deful dara dañ ko bëgg a tuumaal et cetera et cetera ma responsabilité c'est-à-dire lu ma xam lu ma ci xam en hum. tant que ministre des infrastructures et transports hum. de participer à éclairer les sénégalais hum. loolu laa def à l'époque sans aucune virulence man yéenewuma doomu aadama benn mu dem benn tolof tolof dab dab ko bu ma sañoon tey jii nii ni ma ko doon ñaanal au départ que mu mu mu mu mu bañ a am benn problème ci côté boobu noonu mais pires ennemi xam nga wax naa la léegi ba ñu toogee euh, farba ci guddi googu noonu euh, wax naa ko yenn yi du moom sax moo dal sama kaw dafa am sama sama yeneen naataango. Hmm. yoo xam ne ñoo bokk aéroport xamal nañ te ñu yàgg. Hmm. ñoom ñoo ma attaqué. waaye pourquoi ngay wax li ministre bi kilifa la et cetera et hmm. ba yàlla defee. ma delloo si ministre ma dellu nekkaat ministre des infrastructures et transport. nga xam ne loolu yàlla rek ko mën. ki toogoon nee daf may tëj tëjlu ma ñu wuutu ko ñi ma fa fekk ñu fekke woon mbir mi. di ma xarab. ñëw ma dugg saal bi ñoom ñëpp ñu jóg. am na ñoo xam ne dañu def noonu jour boobu ñu viré leen wala lendemain ñu viré leen parce que am na ñoo xam ne nomination. Ah ministre la ak directeur général ASECNA mais ñooñu ba tey ñu ngi seen poste mun ngeen dem enquête yi. defal leen dara vous êtes une radio. Mhm. donc man je suis pas rancunier. Mhm. je suis pas virulent. Mhm, mais nag j'ai ma part de vérité. nous sommes un pays dañu nekk pays boo xam ne dafa ndóol a ndóol a ndóol. ndóol. Euh, sénégalais yi am yaakaar ci ñun ni rupture ak changement bu ñuy wax. daañ ko dund alors donc on n'a pas le droit mhm. xam yenn yi mhm. dund yenn yi ak mhm. ñenn yi bàyyi leen ñu continuer di wax foog ne ils n'ont rien fait il y a beaucoup de crimes économiques qui sont faits dans ce pays saax saaxee nañu alal réew loo xam ne caajuwul sax ma fiy dellu si mais dafa ci am loo xam ne man dama ci teg bët du lu ñuy may nettali nii c'est c'est une réalité de chair et malheureusement pour nos pays de sang et de larmes parce que c'est la misère la plus crasse qui a suivi jërëjëf euh, maa ngi fàttali mbokk auditeurs yi yéen émission le débat politique euh, am sur la BES FM et sur la sur Thiès TV en relation avec euh, Thièsinfo.com. C'est Latir donc est là, donc tout le temps de la campagne référendaire. Nous aurons à travailler avec C'est dans la lucarne Thiès TV et en radio online. Hein. Voilà, donc euh, c'est online, quoi. C'est-à-dire vous aurez l'occasion également de, de, nous écouter prochainement peut-être, ou même aujourd'hui sur Internet. Voilà, sur Internet, c'est fait. Merci, c'est. Voilà, donc, euh, si nous invitons moyen, si nous mon moyen, le ministre de l'Énergie, Kierno Al-Sansal. Kierno Al-Sansal, euh, fille, c'est Thiès. yow bu njëkk bi da nga populaire da nga trop waaw ah parce que man ñi mën recevoir fi ñom ñëpp ñi fi doon ñëw moy temps bi nga bi bi la bi bi bi la dindee ministre hein temps yoyu euh, avant tu étais très populaire après ñu sanctionné le si euh, euh, si local mais Bobak léegi tu es revenu mais tu es moins populaire lan moi lan ma expliquer là. bon euh, est-ce que j'étais très populaire xaw ci dara. si si si est-ce que je suis moins populaire xaw ci dara c'est-à-dire que xam nga li ngay wax ni c'est ce la. Mmh. waaw gis-gis la boo ay sondage ay chiffres. Mmh. yoo nga xam ne dañ ko def ci parce ingénieur là dama gëm mbirum science dafa am war lu mu war a jaar. Euh, def naa tuuti mathématique en tant qu'ingénieur donc statistique am na nu muy doxee. Mhm. ba ma woonoon ay chiffres yoo xam ne day wane ni def nañu sondage. Mhm. boo xam ne méthodologie bi kenn mënu ci mënu ko critiquer. Mhm. nga wan ma résultat yi ma mën a d'accord. non ça. à dire à quand je fais une comparaison c'est-à-dire je vois ni ma ni may déggee man bon très souvent président xama soutien Macky je vois le Kenen euh, docteur Ndiaye la bataille sur les ondes également dama identifier pour identifier ñi nga xam pour pour pour pour et ñoo ñom ñom ñom sax ñoo ah, oh, mais <laughs> comprendre euh, oh. euh, tontu tontu la di nuyu sama natango suñu mm-hmm. docteur Amadou Ndiaye. Euh, man newuma dans une sorte de bataille parce que ñun ñëpp APR la ñuy liggéeyal. Mm-hmm. réew mi la ñuy liggéeyal. Mm-hmm. Euh, Siré Dia dem naa ñaari yoon bureau mm-hmm. en tant que ministre dox sama tànk benn bi infrastructure laa ne woon dama doxee tànk dem bureau parce que soriante wu ñoon beneen bi e, énergie ma dem tàllal ko loxo ñu ànd liggéey euh, Pape Amadou Ndiaye dem naa ay yoon yoon këram xañ plusieurs fois. pour un politicien ça veut dire que j'ai confiance en lui parce que politiciens malheureusement dañu gëm yenn yi et cadre politique Thiès yi nous ma ciy àndalool bëri nañ ce suñu défaut. Hmm. à commencer par moi. n'ai hmm. duñ utilisé les médias suffisamment. pour hmm. cette campagne locale bi man des def interview. mosuma dem fenn semaine bi rek j'ai fait deux ou trois interviews. Nous hmm. devons reconnaître nous hmm. que dañu amoon genre négligence le matadi. Hmm. ci côté communication audiovisuelle c'est ça la réalité. mais boo bëgg boo bëggee bu chaque jour envoyer un cadre différent sur 360 jours mais le plus important. que man dama ne gars ci mouvement bi man bu leen ma ou wala jiital parce que du ngeen top nit man du nit je dis man je suis dans la politique non pas pour Macky Sall mais pour le Sénégal. C'est la différence fondamentale avec man ak ñu bëri. damay wax cadre yi. ak suñu groupe bi euh, on est ensemble on doit construire une euh, euh, une démocratie interne. pour hmm. xam ne dañuy tax consensus le ñuy Ben mais point pour bu ma ko bëggoon day day day des man je me bats pas consensus moom jafe na yéen fi au niveau euh, politique. je termine sur ce point et on revient. Je c'est-à-dire je me bats pas. pour man <coughs> institut personnel. Mm-hmm. comme je ne me bats pas pour Macky Sall personnel. Mm. parce que erreur Bob le gars def xeex pour Macky Sall il faut me donner quelque chose en mm. retour paye en retour moi je me bats pour le Sénégal. Mm c'est parce que moom yàgg na ci politique bi mosuma ko appuyer. Mm-hmm. ba ma gisee li ma doy. Mm-hmm. tax ma war a jóg xeex maintenant. mu mm-hmm. jóg xeex et ba ñuy xeex ba ñu alliance pour la république dañu ne rupture. un seul homme fort qui décide de tout. il finit fatalement par faire des erreurs. première chose deuxième chose bu ngeen seetloo man dama ne gars yi bu leen bind sama tour ci benn miir. c'est rare sax nga gis ay t-shirt à mon fiche en tout cas bu amee du man maa ko fay. encore c'est un acte d'incivisme jàpp miir bind bind bind. par exemple j'ai dit aux gens vous verrez rarement bon maintenant il y a des façons de faire la politique qui consistent plus à faire le bruit le buzz sur euh, la mm. sphère audiovisuelle mm. c'est vrai qu'il ne faut pas déserter la sphère audiovisuelle comme je l'avais fait en 2014 mais aussi il faut faire que réalité bi vous jii nii bu ci terrain bi mm. hier j'ai fait euh, Sapco Tiasnon, route de Dakar beaucoup de gens me connaissent je connais individuellement les chefs de quartiers, les imams, les, etc. Et je peux faire ça tout, dans tout mhm. Donc, j'estime que, en tout cas, moi, je suis content du travail de terrain que je fais et du retour que j'en ai. Mhm. Et bon, au-delà de ça, venu mhm. créer à ben créé sax président de la ne woon axe travail yow dafa cadre diaspora au niveau national man rek ma xaw xeyna day war doy <laughs> <laughs> ci terrain mais comme beaucoup de soi-disant technocrates oui on naa yem au sommet di jéem ni woon ni que man je suis un technocrate et cetera parce que bon. comme je dis souvent de, l'élite quoi au niveau du parti. Oui, comme je dis souvent quel un Africain. Mhm. qui a été auditeur pour le compte de l'aviation civile maanaam aviation civile internationale bu nekk Montréal. Mhm. nga xam ne moom mooy saytu lépp luy mbirum aviation ndax avion yi baax nañu ndax. pilote yi ni ñu leen di former baax na ndax ñu koy saytu ci réew mu ne. am nañu karale bi ak kattan bi. Mhm. man bokk naa ci ñi mu daan yabal ay dëkk yu mel Singapour Singapour quand même c'est un cinquième ou huitième pays dans l'aviation Donc naa yu mu yónni ci ay Estonie Tchéquie Maroc Tunisie pour mu saytu tout fan dem donc bu fekkee technocrate en tout cas au niveau mondial de l'aviation civile j'étais connu apprécié comme ça mm. donc mon ñëw politique à la base mm. vraiment c'est pas pour euh, me dévêtir mm. de réflexe et état d'esprit ma pour euh, être dans le combat fratricide là mais l'enjeu l'enjeu que C'est C'est passé. Ah, à dire que Macky avait dit que lors des dernières locales que celui qui ne gagne pas sa base il il il il nous mais Bidigno également vous avez tout intérêt je pense que vous avez tout intérêt à trouver un consensus parce que de trouver un consensus face à Idrissek, qui est maintenant dans une coalition ah mais euh, je man damay content wax na ni conscience bi am ba paré bo uh-huh. xolé est def nañu comité électoral. c'est uh-huh. Dia moo koy jiite euh, Abdou Mbow mu ngi ci uh-huh. Maodo malik mu ngi ci. dañu démarrer comité euh, pas comité électoral mais directoire. de campagne parce que yi du ay élection yu ñu ab nit yoy Sénégal Sénégal alors euh, directoire départemental Maintenant, proposé docteur euh, Augustin Tine Je suis d'accord ci Maodo euh, responsable de la communication Nous mm. dem commune de Thiès bu mm. à l'ouest où je suis suis occupé de ma responsable responsabilité par exemple c'est Badara Samb de de l'AFP mon moo ko bon aussi d'autres camarades du PS et de de toutes de toutes les parties prenantes euh, mm-hmm. Benno mm-hmm. Euh, tout comme à l'est au nord non la ñu consensus de fi nous avons avancé di le ci terrain bi. que mm-hmm. solo parce que le référendum c'est vraiment des enjeux cruciaux. on en a tiré chacun les leçons. mais may les sénégalais rek. ak parce que souvent aussi nous ñi duñu euh, gëstu ba xam vraiment dañu dégg tëll rek ne damm mhm. man ouest ba ma newoon mhm. ouest ba euh, responsable national des cadres du parti membre du directoire du parti mhm. membre du secrétaire exécutif national du parti mooy kuréel bu gën a kawee ci parti bi entre deux congrès ak conseil national nekk donc ministre de la république dama nangu nekk sur une liste proportionnelle sama naataango docteur Amadou Ndiaye nekk sur une liste majoritaire ba ma koy def wax naa leen wax ñu bëri que bu ma ko defee dinañ ma xarab mm, journaliste yi hommes politiques yi dama daw débat hmm. mais c'était la condition sine qua non pour que ñu am consensus bu ma ko bañoon mun am mu bloc am di ay blocage yàq yu bëri hmm. ma nangu ko man porter loolu hmm. nekk sur une liste proportionnelle pourtant ñi nekkoon ci liste bi yëpp kenn ci parti comme ni nga doon waxee léegi xawoon naa populaire peut-être. waaw ëpp ñu woon popularité. Mhm. ëpp ñu woon ay pexeeg yooyu mais j'ai pris sur moi de de de truc te di ngeen seet mu amatee ay élection amatee ay jongante. bu mhm. fekkee man je risque d'être un point de blocage ma. Mhm. ma bàyyi bu na jël poste yëpp ma dem taxaw fële seetaan leen jàppale leen. y a pas de souci. man je me bats pas pour histoire de poste wala yooyu parce que vraiment. nekk maire wala nekk kii yàlla may na ma. ci fu ma doon liggéeyee fi nga xam ne sa xaral la bopp. sa compétence bopp moo la koy may yàlla may na ma ma occupé les de très haute fonction yoo xam ne bu ma fa yemoon sax même bu ma occupé woon woon de haute fonction. Hmm. liggéeyal réew mi ba ñi ma nekkal xam ne kii liggéey na te gore na ci liggéey réew mi te hmm. def na ci ay jéego yu am solo hmm. dinaa sant yàlla ci loolu te yàlla defal na ma loolu jërëjëf euh, ministre Thierno Alassane Sall ministre leen mooy suñu gante euh, ministre bi yéen da ngeen waxoon rupture ah am na sax yéen sax parce que am na fi woote sax ne rupture moom mu ngi ba tey mais il y a un achat de conscience c'est-à-dire que j'ai lu dans la presse que l'argent pleut sur pièce ay ay milliards des milliards de et qui projets ah, des le président Macky il va mettre 2 milliards 400 véhicules Khalis boobu que fa ko dinañ ci ñëwaat peut-être même ci mbirum référendum dégg nañu dañu bëgg a dugal homosexualité. dégg moom waaw waaw dafa dafa dafa yomb mais bu ñu doon bu ñu amoon moyen yooyu. Hmm. daa ko gis. yoo xam nga ministre de la république la. nekk ci campagne électorale donc tam jamono boo xam ne. normalement day xaw a mel ni day am tension. Hmm. bu fi beneen ministre ci temps wu Wade doon ñëw. Hmm. di nga gis ñaari. pick up wala ñett ànd ak moom ay boy yu bëri yu nekk t-shirt naka laa fi ñuy wax ko euh, sa auditeur yi. je suis venu en avec ma seule voiture actuellement légui la ni bricoler ni pour am ben pick-up pour tek ci sono ñu ngi jéem wër sono bi loué ko tek ci sono si on avait autant de moyens day fek suñu pick-up ak suñu sono taxaw na lu yag man j'ai dit aux femmes dès notre arrivée au pouvoir que joxe ay pis gëwuma parce que c'est un peu euh, infantiliser les femmes ñu baal ma ci expression bobu ñu baal ma ci ki manam mm. jëfandikoo leen le duggal la ci ay carte bu sa sœur taxawee doo ko wax mu def ko bu sa jabar taxawee donc man bu dul mu am ay rassemblement kay meeting on est mais foofu tamit du ñu jënd ay pièces hmm. nee naa leen li ngeen di jënd t-shirt hmm. nañ ko def ay petit projet wala jox ko ay petit groupement hmm. ñu def ñu jéem ci liggéey lu mu néew néew yàlla dina ci def parquet man ci yooyu lool laa gëm loolu laa yëngatu te def naa ne am na rupture man naa milliards yu gars yi di wax man de gisuma ko dërëm jaarul sama loxo fii yow yow kon yow yow yaa président Macky Sall bokk parce que président Macky Sall parti bi na nag qui bu ne. est parti aussi dañ ko def ba ñu opposition. ba ñu opposition <laughs> ba ñu élection présidentielle parti bi amna lu mu ñu jappalé man sama wala bop amna lu ma ci té opposition la lu lu takku sax par rapport à euh, nous beaucoup de sénégalais. donc bo gëmé ab cause faw nga def ci say moyen faw say mbokk jappalé ci mais. que milliard dugg na wala euh, ay millions dugg na vraiment de ce que j'en sais. Hmm ci lu ma ci xam officiellement lu fi jot du ma la wax chiffre yi nag. Hmm. c' est largement mais très largement. surfait non c' est très largement dégg naa le matin sax ay gars yi ne ku leen jox xaalis yële mais ñun joxewuñu xaalis. Ah, ah, bu la neexee nga envoyé équipe ak man bu may def porte à porte. voilà léegi léegi <laughs> léegi yow yow en tant que ministre de la république le président de la république moom moom temps temps il est passé moom dafa dem recevoir imam yi jox leen may jox leen xaalis gars yi dem Touba di fa xeex.

am Imam yu partout dans le pays am nañ ci ñu peut-être euh, ci dégg-dégg la ñu parce que projet de constitution bi wala ko naan dégg lu gars di wax rek na président comme dem ci ku nekk leeralal ko mu recevoir leen waxtaan maintenant li xew ci biir vraiment moi je connais pas les détails ah, clarification hmm? pour man le travail de clarification s'impose d'autant que imam dañu am puissance euh, publique bu am solo. Mhm. buñ mhm. ñu khutba xutba ñu de dañ leen dégg. nous mhm. kenn mënu leen fekk fofu ci minbar bi fu taxaw. di bu ñu nekké conférence di wax kazalik te kenn du nangu micro bi wala la donc bala di am baxna quand même ki nga xamné mom la constitution bi référendum c'est normal parce que euh, gars yi dañu jiitu ci wax ni que dañu bëgg peuple population bi wax ni que ñii dañu fi bëgg a homosexualité dañu bëgg a sax bi mu recevoir leen waxtaan ak hmm. pale parti bi président vraiment euh, c'est privé hmm. c'est privé hmm. recevoir ku mu bëgg bu waxtu julli jotee tamit mais buñ jógul julli ñu ne imaam yi dem nañ ba palais julliwuñu julliwuñu mm-hmm. Mm-hmm. bu te bu boobaa tamit dañ ne waa président sax moom daanaka naka jekk du julli moo tax loolu jaaxaluñu mm-hmm. lay voilà lañ doon wax buñ jullee ñu ne mais palais fe kenn waru fa julli mais c'est contradictoire et d'ailleurs j'en profite pour dire <laughs> am na ku wax lu am solo ne laïcité bu ñuy wax ci mm. dëkk bi mooy laïcité boo xam ne boo demee assemblée nationale dañuy bala ñuy débarrer ñu ne def leen ñaan mm. buñ démé présidence bu imam togué def yi daf leen ñaan. c'est hmm. laïcité hmm. tel que c'est prévu en France amul ñaan. pasteur wala imam wala kenn du fa taxaw. Hmm. Élysée wala benn instance république bu toog ñu naan dañuy defee ñaan ñaan ba la ñuy commencer. wala président fran français mënul jël dërëm dugal ko ci réfection église. loolu la état tere foofu. te pourtant ñun ñu ngi koy dind donc la la la neutralité est est nette quoi non l'église et... séparation nette, neutralité doo président Hollande euh, messe de minuit am 24 euh, décembre mu dem fa wala délégation doo gis xew-xewu église yi mu am lu fa def hmm du am dërëmu état bi bu dugg ci restauration église wala tabax église yu mm. bees. loo ñoom noonu la ñu gisee laïcité. la volonté de hmm? laïciser la la la république kooku da leen ko jiiñ mais ñoo ngi si ñëw léegi euh, ben-, beneen bi ma bëggoon euh, ñu ñu waxtaan tuuti mooy euh, un peu avant ki ñu ñëw question référendaire yi le président Macky Sall dafa waxoon bële passé ku perte élection da lay virer mais bi bi bi bii di ñëw nii par exemple du fekkee ne le non l'emporte yéen vous aurez des problèmes de wala schéma bële amatul xam nga xam nga sénégalais yi waaw dañu dem ba adopter ay termes yoo xam ne. Euh, pas sénégalais yëpp. mais hmm. benn une partie média yeeg yooyu. comme ni nga wax viré dañu dem aborter ay termes banaliser leen. Hmm. termes yooyu euh, c'est pas très courtois. Hmm, man jaar wax naa la jaar jaar yu ma am. yu ma yu ma jaar. man mun nañ ma proposer poste ministre bu ma intéressé wul ma ne bëgguma. affaire question de am nga sa envie servir à une certaine position. c'est pas une fin en soi d'être ministre de la République man samay j'étais quand même dans le staff dirigeant de la secna parmi les dix ñu woo ma nañ dem OACI les plus cotés poste pour ne ma dem Montréal OACI hmm. organisation aviation internationale en 2009 que bobu justement ñu créé APR dénk ma le cadre yi hmm. sama xarit sama natongo Mor gis na offre bobu parce que loy def na am seede pour le ma décliné ko parce que boobu engagé nañu xare boo xam pour Sénégal la. Mhm. xaw ma nag kañ lay jeex xaw ma ndax dina jeex 2012 xaw 2017 xaw ma kañ lay jeex. on ne savait pas on ne savait pas. mais on avait engagé un combat. ma mhm. def sacrifice bi toog parce que dama gëm ni que kii. Mhm. ba ñuy dem 23 juin. mënoon nañ fa des. le 21 juin on a failli m'arrêter tëj ma bu boobaa peut-être sama gars yi asag naa yi dañu ne nag cette fois tu es allé trop loin waroon dugg yooyu droit de réserve ñu viré ma. donc président de la République ministre c'est une nomination mm. Ce n'est pas un emploi mm. bu doyalee mun la mm. démissionner mais c'est pas viré au sens de qu'on te vire mal proprement comme les gens utilisent deuxièmement non là pas politique connotation waaw non cas il koy pour gars yi on n'est pas en tout cas moi personnellement mm-hmm. peut-être même les charges politiques de ministre sont parfois très lourdes mm-hmm. peut-être je me dis parfois je regrette ma vie passée nga xam ne dama daan yeewu sama pouvoir d'achat yokkuwut mm-hmm. yokkuwut surtout que boo taxawee ñu bëri foog ni ñoom ñoo la dénk poste bi parce que xare xare bi moo tax nga am ko alors que yow amoon nga salaire bu méngoog salaire boobu effectivement loo tax ba ma génnee poste bi j'ai dit xaaral ma dellu pour que gars yi xam ne que mm-hmm. lii c'est pas une fin en soi pour nous et que on peut vivre mm-hmm. et aussi correctement qu'on vivait avant sans sans maintenant pour le, le référendum aussi xam nga xare boo gis. Hmm. c'est pas seul. Hmm. moi que je gagne la, mairie c'était une liste d'ailleurs je hmm. suis pas seul en cause parce que gis ni parce qu'on est ministre rek on doit gagner. qu'on est ministre rek on doit gagner d'ailleurs sous-entend li nga waxoon sànq mooy dañu am ay moyens wu état bi dañu am ay possibilités dañu am ay trucs yoo xam ne war nañu mun corrompre population bi wala def ay en tout cas pexe yoo xam ne dañu war a gagner wala féetale lu bëri ce ba nga xam ci wàllum transport routier ak route wala ci wàllum Senelec la la nga xam ne waa Thiès du ñu mun lu dul. wax jàppale mais bu boobaa waa Pout nag. Hmm. waa Tambacounda nag waa Podor nag. Hmm. dina am lu ñu loo xam ne dañ leen ko xañ. Hmm. pour indi ko fii pour suñu électorat. te loolu moom moo tax des régimes yu bëri gaaw a daanoo y a des barons. yoo xam ne am nañ seen fief. mais en dehors des fiefs c' est la terre euh, rase. oui donc c' est le no man's land. y a rien rien. donc référendum bi on est en train de donner le meilleur de nous-mêmes. de vous-même man je crois en ces paroles de Martin Luther King. Hmm. Il wax ni que wala wala wala wala wala sa hadis aussi Martin Luther King dafa ne. Hmm. bu ñu la yàlla dénkee nga nekk journaliste. Hmm. wala nga nekk balayeur. sois le meilleur quoi que tu sois. Soit le meilleur. quoi que tu sois da ngay balayer la rue. ba nga xam ne malayka yi nekk asamaan si. jour boo deewee dinañ seede ni kii. les siens mooy témoigner nous nous donne balayé il a balayé comme Mozart a fait mm-hmm. la mm-hmm. musique. comme euh, Shakespeare a fait des vers. et comme euh, Léonard de Vinci a peint des tableaux. a peint des tableaux man lui me ma que na ci jéem a def lu ma mm. politique bi may def tamit andak mm. man xam matin midi soir maa ci terrain mm. bu j'ai la conscience nette. que j'ai fait le peuple nak jërëjëf souverain <laughs> voilà donc euh, <laughs> fukki ñaata moon dese fukki minutes ak juróom moon dese waxtaan bi ak euh, ministre Thierno Alsan Sall ñoo ngi si Best euh, FM muy jall également sur Lucarno Thiès TV di jall également sur internet avec donc Thiès Info légui monsieur le ministre mhm. kii bi référendum bi mhm. waaw référendum bi sax est-ce que référendum bi moom jaroon na ko pourquoi nga posé ma question boobu lu tax ah. ko jar

Abdoulaye Wade dafa ñëw changer constitution bi dugalaat cinq ans loolu sénégalais yu nekkoon opposition yëpp maanaam ñu gënoon bëri yëpp dañ ci d'accord. waaw dugalaat 5 ans dem ba 2008 ñu falaat ko en 2007 mu ñëw 2008 changer disposition boobu. Hmm. dem ba ci kanam 2011 mu amaat coppi te yu mu bëgg a ci constitution bi. avec le car pour hmm. avec le car bloquant pour que moom mu le premier tour. et en même temps pour que bu defee sept ans yi sept ans yi yi mu dëgmal. Mhm. bu ci defee deux ans rek bu ko neexee mu démissionné ku ko neex wuutu ko. Mhm. loolu la ci namoon parce que mhm. bu fàtte ni defoon na vice président. mais loolu lépp pourquoi mu mën a am. pourquoi loolu mën a am parce que assemblée nationale la jaar. et parce que amoon na majorité. bu am solo bu nekk assemblée nationale. donc bu ñu yóbbu woon référendum bi ci assemblée nationale. bu dee assemblée rek moo ko soppi. beneen assemblée bu ñëwee. mën na soppi lu ñu def loolu tax référendum rek lañu ñu mënoon jaar pour régler problème boobu nga xam ne yëngal na dëkk bi hmm. te ba président de la république ñëwee ba tey Macky Sall hmm. ba tey mu ñu ngi wax mandat bi fii mandat hmm. bi fee as peuple bi la ñu war a delloo jox ko kàddu mu verrouillé nga xam ne ëllëg ay député du ñu mën a tëju même bu dee kii parti au pouvoir bi mu ngi am 100 pour cent des députés du mën a tëju changer disposition yooyu parce que bul fàtte ni 2011 nag ay bakkan rot nañ fi. Mm-hmm. dëkk bi xaw na fi kii gaal gi xawoon na fi suux. Mm-hmm. am ay bakkan yu fi rot touristes yi daw investisseurs yi teewaat seen loxo économie kay koom-koomu. kay bi nekk yéen euh, yéen a demoon place de l'indépendance ak Moustapha Niass di sànni ay xeer di taal taal dëkk bi de. dañu demoon. place non ne da ngeen def révolution da di xeex. dañu dem place dëkk bi yàq yëpp. non Moustapha Niass on l'a vu avec une pierre. non waaw euh, kii Ousmane yor pierre rek du dara. Mhm. xam nga révolution française bi nga xam ne français yëpp dañ koy bàkku. Mhm. monde entier di leen di leen admirer ci loolu. ay bakkante ci rot ay jigéen xam nga euh, ki euh, peinture boobu di symboliser révolution française ab jigéen moo jiitu yor euh, fusil. effectivement. dafa am fay tollu xeer sax day tuub. Mhm. dañu da nga war a jël sax gànnaay pour xeex. mooy seen hymne national aux armes citoyens ñun bu ñu bëggee loolu bañ am justement dañ fi teg constitution boo xam ne dinañ ko ba nga neex rek du day askan wi wala di fi monsieur le ministre xam nga euh, problème ça pose euh, euh, moins un problème de droit que de principe xam nga Sénégal yi problème la ils reconnaissent que ils à la, limite euh euh, euh, euh, euh, sublimer la posture républicaine du président de la République Macky Sall on sait qu'il est assis à califourchon sur l'orthodoxie républicaine mais question qui est la question manam wax Manam, jiki ne voilà man mandat bi 4 ans fait ko fépp gars yi ne ah Macky Sall daal moo baax moom daal ne quatre ans lay def eh qui c'est un grand démocrate Obama qui félicité ko à Sarkozy à l'époque tout le monde les gens ont applaudi à deux mains Macky delu si jékki-jékki delu si naan voilà man du ma ko mën def parce que conseil constitutionnel dal mu ñom ñooma ne bul ko def ñoñ ne ko loolu nga def c'est une tige de bambou c'est-à-dire elle est flexible dula la neexee mën nga ko ki Macky bañ mais loolu moy problème bi mais en fait c'est pas le référendum en soi waaw temps bi xawna na pour ma wax ci lepp luma bëgg wax ci fan bobu waaw euh, man bu ma -hmm.

je voudrais vous rappeler, les syndicats jouent un rôle important. Moi-même, j'ai été membre créateur, euh, fondateur d'un syndicat. Mhm. Mais si nous que le phénomène le microcosme dakarois là mhm. résume Sénégal je nga dama dem en tant que ministre des infrastructures et en tant que ministre de l'énergie honnêtement mhm. le monde rural qui constitue quand même 60% de la population nous nañu que Macky Sall bëri lu mu def ci réew mi yow xëy na xamoo monsieur Diouf parce que yaa ngi diggante carrière fii ak euh, kii Dioufé mi moom euh, <laughs> bu ñu jógee fële rek séeréer moom bu kiiwee rek réer waaye nañ bu sax dem ci monde rural où on a euh, faire l'électrification rurale on va faire plus de 700 villages ci PUDC bi ak nos programmes internes en deux ans et demi. 700 villages pratiquement hum. le deux tiers de ce que ce qui a été jamais fait jusqu'à 2012. 500 villes, 700 villages. On va faire plus que tout ce qui a été fait de 2000 à 2000, de, 60 en 2012 entre deux, de 2012 en 2019. Euh, on fera plus que ça. Forage, pareil. Piste rurale, pareil. Électrification. Oui. Mais buñ on fofu sori na pièce mm. fi. Mm-hmm. Les fameux chantiers de Thiès là. Mm. Ñun buñu ñëwon fi di campagne ci sonal. Oui, chantier de Thiès, mais chantier est terminé là. terminé na mais eh, terminé na. Mhm. mais kii euh, euh, Mbour 3 Mbour 4 Mbour 1 maa ngi profité di leen nuyu ñoom mhm. ñëpp démb ñu ngi fa woon. Mhm. Euh, ay sa faw kii fayu Sofraco. HLM route de Dakar mais foofu dafa amoon problème. ndax aigu. dama taxaw am ku ma ku nii bëgguma tudd turam parce que newu fi. mais ci doomu Thiès yu mag yi la nekk forum civil moom moo ne. 15 janvier 2016 dafa di bas boo da koy noté parce que ça faisait plus de 5 ans. c'était le combat de Abdou Aziz Diop. waaw la première fois mu sangoo mais on a réglé ce problème aigu. ñun suñu kër hôpital régional 20 ans gisuma robinet di couler de jour hier le robinet coulait à 14 heures j'étais trop fier. NSTS. ça ngeen toog ba heure bi door door door defar ndox ICS ça démarre ça prend du temps un projet. Hmm.

plus que croire, on y a mis des, euh, on a mis tout ce que l'État peut faire pour aider. Mmh. ICS dañu fekkoon comme sukuraat. Mhm. mais le plus important man damay wax ben affaire souvent bu may dem ci meeting yi. c'est mhm. 2014. Mhm. ba ma fiy jaar def porte à porte dama romb benn waay wetu guy et n'y cadre fee mu toog atelier am groupe di fonctionner ñu romb ak suñu sono. ak porte à porte y a da ngeen qui fayda rek. wala ngeen jox ñu carburant bi ngeen def ci oto bi ngeen di dem di ça m'a choqué parce que quand même population bi dañ leen war a déglu xam lu ñuy xalaat ci ñun boo perdee loolu rek mooy yow tu euh, homme politique bu fini nga tey jii nii ba dama ko rombaat ne gaayan bi moo ma doon kii daaw xarab daaw jéeg mais ren moom war na wax oui parce qu'on a réglé le problème d'électricité en tout cas on a en grande partie réglé demain d'ailleurs j'en profite président dina dem inauguré inaugurer une centrale de 70 mégas alors quest nga. que vous naxante. fi mu nekk euh, avec tout ça. bu ñu demoon 2015 yaakaar nga ne le le va l'emporter. bu ñu 2017. waaw président de la république gay day gagné magistralement. Hmm. et man j'estime que il a ba muy répété. Hmm. xam nga mënon na bañ a répété Ablaye Wade dañ ko fal 2000 2000 mu ne woon mandat en cours bi da koy wañi appliquer ci mandat en cours première interview buñ ko def gars yi laaj ko ko mu mu bañ. Hmm man xam naa loolu Macky Sall xam na mais Macky Sall a persisté donc dañuy nangu ni que moom ba muy persister. Hmm. di ko répéter yéeneem la woon pour def ko. Hmm. parce que bu dul woon loolu mënoon ko noppi waale toog fàtte mel ni que diggéewul woon encore que le conseil constitutionnel voilà. bon maintenant c'est ce qui disent que il aurait pu choisir une autre voie. il aurait pu effectivement choisir une autre voie. Hmm mais dafa mel ni da nga xam ne voie bi bu ma fa demee du du mm-hmm. Mm-hmm. parce que c'est effectivement ñooñu donc lu ñuy wax am na. Mm-hmm. choisir voie bu gën a yomb. mais est-ce que ça change dana am lu mu changer au fait que li li ni ñi nii naroon wax. am na amut. parce que man dama réfléchir bu baax moi je suis réservé sur cette question je suis pas à l'aise je l'avoue Je je suis pas à l'aise sur cette question je l'avoue parce que c'est une question qui fait appel aux valeurs day laaj sa valeur di di euh, challenger. Mhm. comme niñ ko waxee en anglais di la di la di la ci say valeur mhm. bon mon opinion est que. Mhm. ñu wax nañ jaar benen yoon bi. moy ouvrir la voie foofu rek la xawa d'accord d' droit ne damay contester conseil constitutionnel wala yooyu. mais foofu la comprendre une partie de ce que le conseil constitutionnel dit. mooy que bu ñu nee woon boo amee jafe-jafe pour def benn affaire rek wutal beneen prox ndox boo jaar pour def ko ëllëg. bu keneen ñëwee pour. Il constitution bi day am ay prox la possibilité contourner. contourner contournement alors loolu la Hitler def. Mm. Hitler. Mm. il a été élu démocratiquement. Mm. en 1933. il n'avait pas la majorité absolue mais il avait plus de 39 les autres étaient derrière. Mm-hmm. mu jaar ci prox ndoll yu mel ba dem ba président ba fa vieux président malade jox ko signal ko décret investir ko pouvoir yi investir ko pouvoir y compris le pouvoir d'utiliser des situations d'urgence mhm. prox ndoll bu ko constitution may mhm. Mhm. mu jaar ci pouvoir d'urgence boobu créer créer terreur moom ci boppam def urgence permanente def dictature donc ça veut dire que constitution c'est pas parce que dañu wootee wala jaar de manière démocratique que amul ñu war a saytu xool li ngay def parce que yow kenn nga président kenn hmm. nga xool ndax li ngay def yenu na maana wala yenu na ma yenul maana et est-ce que ëllëg du ñu teg benn benn pratique boo xam ne ëllëg keneen dina ci mën a sukkandiku hmm. def loo xam ne wuute na luy intérêt réew mi hmm. maintenant man je dis encore une fois bu ma sañoon ñu dem 2017 ma sañoon bañ koy wax fekk lépp saytu nañ ko xam ne lii mën na nekk lii mënta nekk mais débat boobu weesu nañ ko parce que li ñu proposé ci référendum bi ay avancement la yu am solo Le point il minutes point euh, relatif euh, à l'introduction de la légalisation de l'homosexualité au Sénégal c'est le cheval de bataille de l'opposition. Moi, je ay moo lay opposition bi amuñu fu ñu rek fan point en tant qu'observateur observateur averti euh, intellectuel sénégalais averti liir nga ko non projet bi. mën la comprendre. fan nga gis rek fu affaire homosexualité. non ça dit les droits le droit surtout à la liberté la liberté liberté c'est que le droit en tant que tel dafa am lu muy par rapport au rejet du système occidental de la France surtout la constitution elle est d'inspiration française quand on parle de liberté on dit que c'est une porte ouverte à toutes les dérives morales c'est ça le problème yow liberté boobu yéen Ousmane France nous dañu dem ba nga xam ñun suñu euh, bigamie bi wala polygamie bi dañ koy contre nekk xanaa kay boobu moo gën a fës. Hum. c'est contre le principe d'égalité de l'homme et de la femme et de tout ce que vous voulez. oui tout ce que vous voulez mais ñun dañ koy def suñu gars yi dem foofu te mënuñu ci dara mënuñu ko traiter. Hum. alors comment la ñu mën a gën a traiter loo xam ne hum. parce que waxuma ni polygamie dafa yées ah. waxuma loolu mais dama ni. loo xam ne sénégalais yëpp ils sont d'accord ni que. lii du fi am te mënta am. mais surtout l'injure qu'on nous fait qu'on me fait à moi, par, par exemple, personnellement, mhm. c'est de croire que je peux être assis à la table du Conseil des ministres, parce que le Conseil des ministres m'a adopté projet de, mm -hmm. de, de, loi. Bi. Mhm. man Thierno Alassane Sall ne ak jàkkay tukulóor mooy sama adresse. Ah, ñun suñu cœur euh, du ma xaw ma sax numéro de ñu fa def mairie bi def. Mhm. bu ma bëggee bind ah, près de l'imam etc. cetera bu fa yegg see rek xam nañ loolu mooy sama adresse man wala def ay affaire en tout cas le bon temps euh, euh, il s'agit d'un système qui va vous emporter. non c'est-à-dire que. man dama jàpp am ne. 15 hmm. points yi ci fenn fu sukkandiku fenn hmm. hmm. pour jéem ñu xeex. ñu dem sos tuuma goo xam bu doy waar la. gis nga ëllëg wala gannaaw ëllëg mooy liberté yi mu wax mu dugal ci homosexualité mhm. kooku dañu ne ëllëg wala gannaaw ëllëg kooku nettali gént la mhm. pulaar day wax ni que mhm. rey leen ko am na lu mu wax wala rey leen ko am na lu mu xalaat kooku mësuñu ko gis vous ne trouvez pas la votre votre position n'est pas suspecte par rapport à beaucoup à beaucoup de choses bu bu kii amee bu jour boobu amee parce que tànk bi nañu ci constitution bi newul ci constitution bi bu ubbiwuñ ci benn prox ndoll ci constitution bi bokkul ci constitution bi jour bu assemblée nationale tooge nag naan day voté loi buy légaliser homosexualité bu boba di nga xam man Thierno Alassane Sall fan taxaw non attendez c'est-à-dire que gars yi nañu débattre ci yi fi ne bu bëggoon sax ñu proposer une reformulation xam nga lu lay ne gars yi ils sont pas dans le débat positif mm-hmm. bu doon noonu la nañu proposer une reformulation bala bala avons un adopter projet de loi nous proposer une reformulation le, temps est très court vous vous nous avez vous leur avez imparti un temps très court ils n'ont même pas le temps de réfléchir deuxièmement deuxièmement si ils ont eu le temps de réfléchir proposer une reformulation c'est une histoire d'une heure de temps mhm. deuxièmement deuxièmement xam nga fa nga xamee gars yi euh, ils sont pas euh, dans la dans cette volonté d'aller au au truc. c'est hmm. qu'ils ils avaient d'abord dit qu'ils voulaient mais après ils se sont rendus compte que boycott c'est pas une position politique. ils ont voulu aller hmm. pour mieux. que hmm. petit cere bi suuf. <laughs> jërëjëf euh, Thierno Sall nous allons faire avant de faire la synthèse une petite synthèse en français le dernier kii bi fils fii si biir Thiès. Idriss Seck mu ngi fii xam nga bu lay passé moom dafa leen gagné woon gagné gagné sax yen ñep ngeen boole mu gagné leen mais bi dafa ànd ak coalition bu am doole moom. euh wa sinon bi sinon bi. xam nga Idrissa dafa ñu mu àndal. yéen tamit ànd ak coalition mais de. ah euh, dafa ànd ak coalition. waaw bële. waaw local yi. dafa ànd ak coalition benn gagné wu ñu gagné bu am doole. Hmm. il a gagné. nous avons perdu il y' a pas de souci. waaw mais xam nga Thiès Ouest par exemple. waaw lu ñu wutale ci ay conseillers sur la liste proportionnelle bari bariwul de. bari ah hein. il a eu 42 pour hmm. pour la première fois dans la circonscription de Thiès est ouest bi nga xamné ne fa le dëkk. Mhm. stafam ñu ci ëpp solo deuk fa. Mhm. je veux pas citer de nom mais stafam ñu fa ëpp solo. Mhm. deuk fa il a eu 42 té dafa dem coalition ñun ñu am 36 si je ne m'abuse donc l'écart n'était pas aussi énorme pour la première fois mais points ah mais pour la première fois amay centre de vote yu bëri yo xamné ne dañ ko gagné ñun dañ ko gagné donc euh, attendez et en deux ans deux ans donc, euh, bien sûr, avec les difficultés qu'il y a eu, etc., on a tiré toutes les leçons de ces difficultés. Euh, le baromètre vous paraît rassurant En tous les cas, du mais am na ñu wax nañu peuple bi moom mooy prononcé wu nañu bàyyi peuple bi su euh, prononcé wu man li ma xam hmm. Thierno ak ñi ñu àndal hmm. mooy ñu ngi def suñu kem kàttan pour dajeeg ces waay expliqué leen am na benn jafe-jafe rek bu ci am mooy dañu tuumaal tuuma bu doy waar hmm. xam ne méngoowul ak dara waaye foofu la ñu mën a jaar koy pour yàq mooy wane ni ñoom nekkuñu ci débat démocratique bi dañu nekk ci débat de personne Voilà donc, euh, c'est dans la continuation du débat politique, euh, une partie, disons une heure en Wolof, euh, donc l'animateur qui, qui, vient va nous donc, concéder cinq minutes pour lesquelles que nous allons réserver à la partie française. Thierno Al-Sansal, vous êtes ministre de l'énergie, donc vous êtes, le Sénégal est à un tournant de son histoire. Il s'agit de dire oui ou dire non par rapport donc au projet de constitution proposé par le président Macky Sall. Vous, en fait, comment, comment, comment comprenez-vous d'abord l'opportunité de ce référendum. Ensuite, euh, avez-vous des chances de, remporter, disons, le oui ici à Thiès où vit un ogre comme Idriss Seck et sa coalition ben, si on n'avait aucun espoir, euh, je pense qu'on ne mènerait pas la bataille. Mhm. Comme on dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Sans gloire. Moi, j'habite un quartier de Dakar, mhm. Sacré-Cœur, et je profite pour saluer mes amis, mhm. dont j'ai été l'un des premiers habitants à l'émancipation duquel j'ai fortement contribué, où j'ai beaucoup d'amis de réseau. Ils m'ont dit, c'est pas la peine d'aller te battre à Thiès au départ, il mhm. faut rester à Dakar. Mes parents du Fouta m'ont dit, il faut venir à Podor, dans la communauté rurale de Guédé, c'est plus facile. Je dis « J'ai je suis né, j'ai grandi, j'ai vécu Thiès. Mhm. Il m'arrive de rester à l'étranger pendant un peu de temps, quand j'ai la nostalgie du pays, je vois pas ma maison à Dakar. Mhm. Je ne vois pas le pont Félèbre que je connais parce que j'ai vécu un an à Saint-Louis, j'ai fait une classe là-bas au primaire. Je vois exactement la rue de la manufacture de Thiès parce que j'ai vécu au 10e et c'est une rue qui m'a beaucoup marqué. Mhm. je, vois Thiès. Quand je pense à ma jeunesse, je vois des, des, instituteurs de Thiès, mon directeur d'école d'Embassal. Je veux dire donc que ma jeunesse est pétrie de, dans Thiès. Je suis un homme pétri dans la, dans la brousse, dans la savane, dans les manguiers de mhm. Thiès. Mhm. Et je ne vois pas ailleurs où une victoire me ferait plaisir. vous êtes nostalgique alors Ce n'est pas une question de nostalgie. Je suis de oui, Thiès. On ne peut pas être euh, de, du Sénégal et aller compétir au championnat national de, l'Inde. Non, c'est pas possible. Une équipe. Il vaut mieux compétir et attendre la Coupe du Monde. <laughs> Terroir. Donc, euh, je suis de Thiès. Et comme je dis tantôt, c'est les grandes aventures qui, qui importent, pas les petites victoires. Hum. J'ai aucun complexe aussi parce que comme je le dis souvent à nos amis politiques, on ils disent on a gagné, vous, vous n'avez pas gagné, etc. Je dis Bon, écoutez, hein, euh, vaincre contre Yaoudial, c'est une chose. Mm. Euh, perdre contre, euh, comme le disait le chanteur, il y a Dan aussi. <laughs> Bon, donc, <laughs> les combats sont différents. Mais ce qui est important, mm-hmm. c'est que nous avons mis tout ce que nous avons comme cœur, mm-hmm. comme intelligence, mm. comme compétence, comme volonté à aller de l'avant. Et ça, je pense que c'est ce qui sont dans la ville, qui suivent le combat politique, savent que quand je quitterai votre studio jusqu'à 19h, je serai de porte en porte. Mhm. Et je le fais depuis assez longtemps maintenant. Et je me réjouis aussi de constater que quand je vais dans certaines zones, on me dit aucun maire n'a jamais posé les pieds ici. Ah on ne parle même pas de ministre, mhm. on ne parle même pas de premier ministre. On me dit que justement le challenge dont vous avez parlé tout à l'heure et que je salue au passage. Parce qu'il n'a jamais dit que de bonnes choses sur ma personne et je ne voudrais pas dire aucun mot de trop mhm. sur sa personne. Mhm. Mais la réalité est qu'on me dit, par exemple, à Darussalam ou euh, dans des recoins de Djaha ou ailleurs, ou dans Dakar, que bon, ils, n'ont jamais mis les pieds ici. Et quel que soit le résultat, je sais qu'une partie de la population de Thiès a de l'attachement pour moi, comme j'ai de l'attachement pour euh, elle, et c'est ce qui importe à la fin. Mhm. Parce que si je retiens que ce que la politique m'a donné, c'est de m'avoir réconcilié avec une partie de, ma ville, mhm. de faire en sorte que je connais beaucoup de gens qui me, connaissent, me connaissent et que j'apprécie beaucoup. Mhm. Ce qui importe in fine. On peut ne pas avoir la victoire finale même, mais avoir la satisfaction morale d'avoir contribué. Participer au combat. D'avoir participé. Avoir participé à bouger les lignes. Parce qu'aujourd'hui, on a forcé quand même les mairies à se ressaisir. Mhm. Et de 2000, euh, avant 2014, 2009 mhm. à 2014, c'était la léthargie totale. Là, vous les voyez bouger un peu. Parce qu'ils savent que mhm. s'ils ne, si, bougent pas, eux, les maires, mais ils risquent d'être lourdement sanctionnés parce mhm. qu'il y a d'autres dynamiques engagées qui, que, les, dont les Tiessois commencent à se dire qu'ils sont effectivement à leur service qui sont là merci euh, jërëjëf euh, Thierno alsan Sall donc waxtan bi euh, fi leen koy yemale waxtan bi jeex sen débat politique la euh ma seqoon ko ak le ministre leen Thierno alsan Sall mang koy sante ko gërëm bu baax di sant Thiès Latir Sey Latir de Thiès di sante auditeurs nga xam ne ñoo doon dugg Ousmane Diouf moo doon présenter débat bi ma leen di jox dajé di su rek 14h danañ am Ibrahim Kodou Fall directeur général NSTS donc mom ton waxtan ak mom comme ni ñu waxtaan ak Thierno alsan Sall merci d'avoir suivi excellente suite de programme à tous au revoir.